maa ko gën a nawloo pour moom waa léegi buñ ko nawloo woon sous su ah, région bi dinañ topp di ñu saaga ay ndey di traité joomaay de tous les tous buñ ko euh, respecté woon dinañ fal joomaay ñaari fan waa waa Casamance rebelle yi di xas joomaay te kenn ŋaangul kenn faju ko boobu ana Alioune Tine mi est-ce que waxoon na ci. da nga yaakaar ne Alioune Tine Sonko wala ñu ni mel war nañoo taxaw ci ay position ci jéeg jamono yow mii yor nekk ci presse sax da nga waroon a wax. parce que cette sécurité là nga bëgg ko nga bañ ko Diomaye et ton président ma bëgg ko ma bañ ko c'est mon président nga fori sous région bi ni ni saga jomay neex lañu ndax xarina na yaa ñu ko fañ ndax ñom ñu do sous région bi dans l'histoire politique du Sénégal pour la première fois ñu japp un président diko ko critiquer ak premier ministre diko saga ay ndey diko traiter de violeur pour la première fois dans l'histoire du Sénégal politique du Sénégal amul suñu benn autorité buñ fi mës a de Senghor ci ñoom ñi judd barki dem a waroon am fula am fayda di door ci table bi ñoom la ñu yab Macky bi fi jógee kenn yabu ko de séqu ko ñooñu sax bañ koy yab nga dem barki dem toog ak sogal may gaa mu perte moomu démocratie am suñu dëkk démocratie amul seen dëkk 24 heures duñu am courant di ñu xas ñun Ousmane Sonko nga nekk premier ministre nga ne pat ra toog <laughs> nga ne loolu mooy fula ak fayda ñooñu lañ jox réew mi ñi leen koy jox nak mën nañ ko nangu nangu bi moy jël euh, assemblée bële dugal fi opposition bi ah. nga xam ñom waru ñu leen fi wona jëlé ana li xew dafa metti damay jëlé ana fi parce que mënu liggéey ma indi ko xam buy wax manam kenn duko ko dégg du ko waxay daf may nakari de ñami yi ci plateau da leen nakari ndax dañ nan suma ma ma bàyyi fi ana sénégalais yépp nee buñu bu ñu yëgoon fi Macky Sall ak ñimu andal ndax ci peux pas dire que da ngay wàññi ay député toi tu es à est pas à 40 ministres. ñi nga xam ne ñu ngi leen di nommé te waxuñu ko Cheikh Omar Diagne biir palais pour lan la euh, détail yeeg yooyu il faut qu'on soit sérieux frais d'état 40 oto topp joomaay pour lan Ousmane Sonko ñëw ak cortège am jël joomaay rek di ko nëx di ko nëx di ko nëx waa léegi man du ko faj nag joomaay moo koy fajal boppam voilà en tout cas di euh, mhm. ou pas Bou mhm. euh, le président de la République son excellence reste le président de la République parce que la def je suis entièrement d'accord avec Mme euh, madame quand elle dit par exemple que Ousmane Sonko a lenn reprocher effectivement on n'a rien à reprocher à Ousmane Sonko parce que dafa am choisir donc c'est à lui de prendre ses responsabilités maintenant pour en revenir revenir un tout petit peu ci euh, les propos de Aluntine. Tine euh, li mu wax dafa euh, bu ne Diomaye est confiné au palais c'est son qui gouverne loolu xëy Mom, moom le guen pour wax ko mais beaucoup de sénégalais wala boog ñu bëri ci askan wi yàgg nañu génn di wax loolu nga xamante ne nii moom moo am mu teg ca ni on assiste à un état de Pastef lu mu on assiste à un état de Pastef mais bu nous allons petit à petit vers un système autoritaire je pense que war na alerter képp kuy sénégalais parce que nag dafa am loo xamante ne nii moom moo am euh, lan moo euh, un régime est dit autoritaire euh, bu ni il cherche par tous les moyens la soumission et l'obéissance de la société et c'est très dangereux parce que mën na ko jaaree ci yoon bu nekk mën na ko jaaree ci li ñuy woowee populisme mën na ko jaaree ci li nga xamante ne nii moom mooy répression te foofu la danger bi nekk parce que répression fu mu am euh, li nga xamante ne nii moom moo di fippu dafay am parce que nag je ne pense pas que les Sénégalais vont se laisser faire wala ñu euh, euh, euh les autorités ñu teg leen loo xamante ne ni xëy na euh, dafa du méngoo ak li nga xamante ne ni ñoom moom la bëgg c'est très dangereux aussi parce que autorité un système autoritaire euh, buñ ko waxé soriwul ak li nga xamante ne nii dictature té dictature bokk na ci li nga xamante ne nii moom doon dénoncer ak le régime bi fi joggé yàgg nañ fi wax Macky Sall le dictateur le venant de ces autorités qui nous dirigent dégg nañu ñu euh, surtout Ousmane Sonko mu yàgg di wax ni Macky Sall le dictateur la te am na loo je ne pense pas que nit ñi dinañ ko nangu parce que on n'a pas du tout envie euh, pas du tout envie de vivre ce qu'on avait vécu pendant pendant ces années yi nga xamantene ni mom mo fi désolé non waxuma par rapport ak dictature bi en fait quand je parle quand je dis qu'on n'a pas envie de revivre lu ñu dundoon par exemple répression euh, répression boobu nga xamantene ni Ça c'est-à-dire répression populaire bi mu mën a soulever li mu mën a jur moom moo tax muy wax may wax conséquences yi nga xamantene ni moom moom la parce que répression boobu moom moo fi indi li am de mars 2021 à euh,

dafa war a tegu dans les rails de l'autonomie euh, autonomie dafa war a tegu dans les rails du développement comme ni ko Fatim di waxee tout le temps nekkuñu un pays boo xamante ne nii dafa développé dañu am réew boo xamante ne nii li ñu bëgg mooy ñu am émergence li ñu bëgg mooy mu avancé donc am na yenn mbir yoo xamante ne nii su euh, amee ci réew mi mënul lu dul delloo ginnaaw réew mi et je pense que loolu autorité yi ci boppam ñoom ñoo ko war a njëkk a bañ c'est très dangereux nag parce que euh, autori régime autoritaire moom

Alioune Tine mooy la personne bi ko wax foog naa bu ñu xamul lu bari ci moom li ñu sonn xam ci moom ay yenn wax yu mel noonu su génnee ci moom du bett kenn Ndeye Sow dafa wax la même importance sénégalais yi dañ koy fàtte moom moo jiite think tank Jom Center ñooñu seen seen liggéey mooy que dëkk yi nga xam ne day am ay jaxasoo am ay xeex am ay guerre ñu dem fa nekk ñi nga xamante ne ñooy ñooy facilitateurs yi ñooy nekk dialogue yi intermédiaires yi di waxtaan ci biir loolu mooy tax seen organisme yi gën a dox léegi ñooñu nag su fekkee côté boo position boobu lañ taxawee bu xawee sedd day mel ni il faut ñu xaw a tàngal tuuti pour ñu mën a am lu ñu def mais bu ñu fàtte ne même Alioune Tine bi li Anna wax léegi dafa am importance mais même Alioune Tine bi si journal l'informateur moo moo moo ñëw wax loo xamante ne foog naa ne dafa dafa dafa am importance parce que wax na ne rejeter systématiquement les critiques faites par les gens, c'est-à-dire la population sénégalaise, euh, c'est aller vers, petit à petit, vers un système autoritaire, comme les Anawa. Ouais, même à l'Unturbi, or le Sénégalais, les Sénégalais sont rebelles à tout, à toute forme euh, euh, d'autoritarisme. Quand mon xam na sénégalais mon nga koo def lu nekk waaye boo ko jaayee doole moom d'olé, moom wax na ko ba pare te bu boobaa euh, ci waxam joojo wane na ne sénégalais kon mu ngi am fulla goo xam ne bés boo ko jaayee doole mu fipp du nangu ku ko def dictature muy waxaale sous-entendre sénégalais yi ne leen pare leen dañ leen di bëgg a yóbbu fii mais bu leen ko nangu kon ma ngay ma ngay xam comme ni ndey sa kii wax bu nekkee suñu xalaat rek la euh, que pour que ñu gaaw préparer wu si dem mais bu Alioune génn wax lii même Alioune bi moo fi waxoon ba jomaay bi gin ne dafa bëgg ñu defal ko ben loi bo xamné da fay may pouvoir le premier ministre même Aline Tune bi mo defoon post tweet mu moi je suis d'accord pour pour qu'on donne plus de pouvoir à un premier ministre mu d'accord pour qu'un premier ministre gouverne et qu'un président de la République régule même Aluntine Tine wax lool mu reste une force correctrice le président de la République il régule et reste une force correctrice et régulatrice car ça ne me gêne pas il faut simplement euh, réorganiser la constitution Aluntine Tine xam nga li. wax na li di sénégalais yi ne préparer leen man sama gis-gis préparer leen kat euh, euh, ki mo fi peut-être dictature waaye comme sénégalais ngeen comme ni ñuy def rek mu taggal ñu suñu maamee yi ngeen solu ba takku ba dëgër ba mel ni naanaa ngeen taxaw jàkkaarloog ñoom bu boobaa du wax joo xamante ne dafa bañ pouvoir bi fi nekkoon déedéet mais man si sama gis-gis am na la muy jàmm ci suuf di ko sous-entendre même Alioune Tine moo fi taxawoon ni dafa d'accord pour que ñu jox doole premier ministre mu dem ba gouverner loolu man la ma ciy jàngat dama koy basé si la mu wax ca fin ba moi il faut qu'on réorganise la constitution mangay wax en quelque sorte aussi ñenn sénégalais wadjal waajal leen bu ngeen joxee ñii assemblée national ñu préparé wu suko défé dinañ mëna a ay loi ñu changer euh, euh, euh, constitution du Sénégal ñu mëna a def lañu bëgg légui nak sénégalais ci bopam bo ñom ñoy am sen mat am sen responsabilité bo xamante ne cas yëpp dinañ ko étudier ba lu ñëw am ñu xool pan position lañ ci defee ñu ngi wax dissolution ou pas de l'Assemblée nationale buñ ko dissoudre dañuy dem uti jiwaat ay voix kese ñu voté ji day dépendre ba léegi ci sénégalais yi bu su fekkee ni ki ñoom d'accord nañ joxaat leen 54 wala 60 pour comme nañ ko defee woon si élection yi xayrun amul benn problème on gérera comme ça ku nekk bu ñuy souffrir on souffre en silence bu ñuy bégee aussi ñu bégee en silence mu jàll su fekkee tamit nag utiliser nañ suñu xel ñu réfléchir bu baax xool tenants et les aboutissants xol bañu ñu ko 24 mars 25 ba nëgë ni lan mo xew ci réew mi fan lañu ñu won fan lañu ban pa lañu yémon ak ba moment bi ñu nek ni fan lañu ñu ci diggante bobu non trajet bo lan ak lan mo fi jaar buñu ñu convenir ñu jox lan buñu convenirul ñu organiser wu sétat lenen lolu moy seul mais aluntine nak mom man duma ko ci mere parce que même aluntine bi mo waxoon d'accordone demb pour ñu joxoon sonk mu ah, gouverne ak yoon te waa da nga dañuy jàpp ne incohérence la parce que noonu la ko bindee noonu la ko bindee mais man duma jàpp ne incohérence la man damay jàpp ne comme ni mu ko waxee Sonko mi ngi am da commencé ba nëgëni ma ngi cay yoonam tracé ko te nëggu ci dara daf ko assumer di ko gérer Alioune Tine tamit ba muy allentine ba tey chemin bu mu bu mu jiite fa la nekk forum civil la bokk dafa jiite benn entreprise ONG ba mu jiite dafa am role bu ko tax a jóg donc chaque jour lu mu ànd ànd ak yow la nga xamante ne mooy mbiram mu koy liggéey jàpp ko te war cee dund ba abadan daf koy gën a dooleel te man personnellement dama jàpp ci mu ngi ci yoonam ba tey comme ni muy jiitee euh, Africa Jom Center di wër loo xamante ne mooy tax ñu ñuy liggéey à chaque fois foofu laa ko classé euh, léegi nag la muy xaar ci gouvernement bi moom la am na ñu posé wu interrogation est-ce dafa euh, dafa dañ ko séddagul moo tax mais dans tous les cas lépp dina leer ci kanam waaye ki war a régler problème bi jël ses responsabilités c'est les sénégalais parce que à part les sénégalais ñoom rek ñoo fi sës ñoo ko mën a jël ki war a jël responsabilité régler ko une bonne fois moom la wax ne il est confiné au palais muy le président de la république te loolu moo am effectivement kenn déggu ko kenn gisu ko ak lu mën di xew kenn déggu ko donc dañuy jàpp ne il est confiné la ñu amoon rester chez vous rek moom moom la appliqué en 2024 léegi nag comme te amuñu ci beneen solution bu dul les

il a fait ce qu'il voulait et il a pris ce pays-là et il a menti à ces gens-là et il sait que ces gens-là xamnañ ci lu mu nekk ci li dox xawma ma xam dégg nga ma. mo la gëna a ñi mo ànd ñepp ay faux type ak faux femmes. li mu wax tegu ko fenn jëfin bi tegu ko fenn waye ñi and ak momit and gi xamnañ nañ ne waaye tegu ko fenn ñu ànd ak moom loolu laa pour quelle raison justement soo ñi mo andal da leen di xol di leen ree xam ay nit bon la andal ay nit ñu gëmul seen bop la and moom gëm na boppam ba nekk ci logique xaw ma xam yéen comprendre ngeen li may wax ci Sonko Sonko gëm na moom logique am gëm na boppam moom ba nekk ci logique am tracé tracé am Ousmane ko daawul nuyu jigéen xaw ma salafiste la xaw ma ab ibaadu nekk ab ibaadu musul faare tarixa dossier Adji Sarr am mu bëgg ñu ko sotal ñu ne ko murit gi mu daw dem ca murit gën a day jébbalu gëmu leen ñu ñu fekk si ko ci loolu gëm ne moom gëm na moom ñun ñu maanaam moom lim ñu gëmloo ñu gëm ko ñun te gëmu ko moom intérêt tax mu def ko xaw ma xam yéen a may dégg wala déggoo leen maanaam Ousmane gëm na ne gëmloo na ma ne man dafa jébbalu ci sëriñam man ma gëmal ko ko man ma fekk si ko ci li muy def moom alors que c'est faux parce que mënoo xëy nekk benn ibaadu xëy ne yow murit nga ku daawul nuyu jigéen nga xëy na yow murit nga te murit ab jullit la ibaadu ab jullit la waaye yow da ngaa wane ne tarixee bay baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg li Cheikh Omar Diagne mii gëm ba def ko moom la Ousmane Sonko gëm. moom la xale bii xurum xar la xaw ma gëm xaw ma nag joomaay moom la gëmu la gëmu ko parce que nag li wax ji wax ji di bëri li wax ji di bëri bëri bëri joomaay su weesoo ba mu naan magistrat yi Macky Sall la leen yoon yónni pour ngeen togg euh, rey naka rey Ousmane daggate ko togg ko xaw ma moom bu weesoo loolu amul benn délit boo ko déggal moom waaye man gëm naa ne moom bi muy ja soutenir soo ko ca commencement ba di dem ca télé may mun a nduur fay ba defe naa la xaw ma 2 di wax ne Ousmane ala ma rey waaye mu eh, naan di joowaay baat bu sew beeg tuuti waaye bi naan xamu ko may mun a xamu ko mais joomaay bi mu duggee biir pale ba ñu jox ko dossier bay won ko ko gisuma ko waaye toog na ci fëre bi wala moo xam na xam na ne lépp lu ñu wax ci Ousmane Sonko rek dëgg la kon foofu rek moom waroon na mën a tenir distance ak Ousmane Sonko xam ki mu àndal mooy kan ak li mu sañ ak li mu sañul parce que nag ay bakkan dañ cee tëdd ay doomu jàmbur dañ cee dee ay doomu jàmbur pat ay doomu jàmbur laa gi kon moom déjà su nekkee gis na dossier bi rek xam ne sa waa ji la lam la am ak la mu wax du benn ba tax lii yëpp am war na koo mën a ragal mais daal <laughs> Sonko moom lu ko ay mënti wax ma man daal daal ma nga ca logi am ma nga ca la mu bëgg ma nga ca la mu gëm te mi ngi ciy persister li daal laa xam jooraayee mën a dem ay laafam nag. kene mënu ko damm defena ndax jomay moy président bi. alors ci ci élection yoyu lañu lañu la jëm euh, moy don suñu 3e point euh, gis nañu euh, biñu annoncer li di élection législative anticipée gis nañu politique yu bari commencé di yëngu di organiser wu ñu gis ci bloc euh, des libéraux TAKU, ñom taxaw ben coalition guen ndax euh, li Ahmed Ahmed Khalifa Niass wax ci émission bi mo am ak aissatou Diop Fall japp ni sans le président Macky Sall APR dotul exister ti ndax yow da nga d'accord ak mom ci ci ci non mais APR existe toujours le président Macky Sall est toujours à la tête de l'APR lii Modou Diagne Fada initier taxawal ko moi, le bloc des libéraux. Les libéraux, c'est Macky Sall, c'est Idrissa Seck, les libéraux, c'est Djang Fada, c'est euh, M. Sartre, c'est Omar Sarr c'est tout ce beau monde-là. Ça, Non, non. Mais Macky, est-ce qu'il n'est pas membre fondateur avec Idrissa Seck Mm-hmm. il est membre fondateur avec euh, mais ça n'est pas une coalition de de de de partis politiques yi nga été comme l'APR APR la coalition Benno Bokk la coalition Benno Bokk est toujours debout l'APR est toujours debout parce que moi je fais partie de Benno Bokk maintenant man y yor naa que je dégguma que je suis un drapeau je suis un Benno parce que pour moi, je suis da ngay respecter sa parce que tey mënuma def man du def comme nit ñi yor suñu coalition wala benn parti rek bu jóg jotee man leen jóg leen bu dem jotee man leen dem leen bu toog jotee man leen toog leen ñun dictature boobu dunduñu ko bës bu ñu gisee dara luy ñàkk fayda lu jógee ci président Macky Sall ñun nit du ñu yàpp xaalis la ñuy ëppalee waaye du ñu ëppalee ngor ak ak ak fulaak fayda loolu moom nit duñu ko ëppalee looloo ñu boole woon ak ko ndax dañoo taxawal coalition mu nekk le porte drapeau xëy ñun ñu toog ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux la alors lañ déggee ne Sonko bàyyi na coalition jot na alors que toi le porte drapeau bàyyi naa coalition jot na ku léegi ku bëgg a ñëw da ngay ñëw ci sama euh, ci sama parti nga dissoudre sa parti wala sa mouvement moi je l'ai pas fait et pourtant je pouvais le faire parce que c'était un ami c'était un frère mais nag man euh, la ndaw sa nekk ca télé ba wax euh, nga respecté moom moo ma gën a salaire Sonko Macky Sall bu defone lu mel non nit ñu won ko kon ñun pour ñun la coalition Benno Bokk yaakar existe bel et bien toujours parce que ñu à part Djiboka kenen ko démissionné. non non est-ce que mën na cohabiter politiquement parlant. les libéraux ce sont le PDS ñi nga xamné libéraux lañ parce que dafa am la gauche la droite les libéraux les non alignés les non alignés voilà les non alignés et ainsi de suite légui nak si les libéraux doivent se retrouver ça c'est a APR nekku ci ak la coalition Benno Bokk bien vrai que c'est Macky Sall il est libé il est c'est un libéral les nak ni ci coalition Benno boko yakar ño xam ba xam ay libéral lañu wala ay gauche lañu wala li ba euh, quand ils se sont réunis la conférence des leaders leur porte est grande ouverte à à de gauche à de centre wala li ñep mëna nañoo ñëw ils sont la bienvenue mais il faut ñu leeral lolu il faut que nous leeral ne que c'est pas Macky en tant que président Benno Bokk Yakar bon tas Benno Bokk Yakar wala à tas APR non non Macky Sall du du am bébém bi di ko quand même ces deux bébés là wala ben bébém bi parce que APR c'est il est dans Benno Bokk Yakar diko ko xëy xëy même bu ko don bàyyi dina am num koy défé quand même quel mooy ñun ñoy génn kenen moy génn mais ça reste toujours là mais je pense que il faut ngeen dem euh, def émission ak euh, Modou Diagne Fada dina len présenter ngeen ngeen dem cette école. def ak mom émission té il va l'accepter il va vous expliquer qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il là voilà dina len dina ci wax sax dina len dina dem di ngeen dem cette école, ngeen def ak mom émission ngeen poser ko la question il va vous expliquer euh, le lan motax jogli mais maintenant le bloc va venir le bloc moy le le bloc de l'opposition bo xamné euh, tout le monde va se retrouver et faire face à ces gens-là on ne peut pas les laisser gouverner, gouverner ce pays comme ça. Dans ce bloc-là, nous avons euh, Amadou Ba ndax dégg nañu ay ay waxtaan yu jëmale ci wàllum euh, socialiste yi di dajaloo ndax mën nañu xaar Amadou Ba ak euh, ay Bougan, Khalifa Sall et cetera ñëw wala ñoom dañu war créer sen sen sen bloc bopp bu ñu gisee ne bu ñu defoon seen bloc sax hmm. bloc yëpp ñoy tassé wat. Lore mo meuna nek. on va pas se suicider en en nous séparant ah non <laughs> dañuy dañuy bolo et je pense que politique euh, on est assez ancré dedans que il faut qu'on fasse bloc devant ces gens là ce sont des gens à, ne pas donner l'Assemblée nationale et inchallah Rabbi Allah... yàlla daf ah si je vois mal Ben Khalifa Sall dem di top Ousmane Sonko je pense qu'il avait fait l'erreur avec Yewwi et ça va plus se répéter on va faire un bloc parce que Yewwi existait toute Ousmane Sonko pour les locales et les législatives, sans ce bloc-là, il n'allait jamais euh, avoir ce qu'il a quand même. Il faut qu'il y ait des gens qui se réunissent, ramener li moy tax ñu mëna Mais gens nek ay opposants ba paré non non, nak ñu nek opposition opposition opposant ba paré d'accord ci lu du deug ci opposition. On n'est pas d'accord. Ñun mo ñu jog mu ci et le, le, là, ce sont les libéraux qui sont là. C'est pas parce que Macky Sall fait partie des libéraux que APR a existé tout. Bus bu ñu ba APR d'autres existait ñoom ñi nek biir APR dinañ ko wax dinañ ko lijjanti sen Macky Sall day toujours à la tête de l'APR Ni bëgg a génn nag ñooy mais ça c'est son chouchou à lui c'est son bébé à lui le Benno Bokk Yaakaar et voilà notre voilà. est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Macky Sall soit tête de liste de de ci bloc bobu non? mais pourquoi pas su nekkee non la ñu gisee yaay di sa sék ya Macky Sall

Ils sont venus. Si le chômage était à 50%, le chômage est à 100% maintenant. le chômage question de, du taux, de chômage, puis en une fraction de seconde. Day Pourquoi xam calculer y avait un taux de chômage pour xam ne ñoom nee nañ bu ñu réduire li, dañuy def lii dañ koy lijjanti dañuy def lii dañuy def là en trois mois ils claquent des doigts ils avaient la solution man bu nit ñi di wax non man les solutions ku déglu euh, bon bu nekkee lire ngeen programme Amadouba. Amadou Ba Amadou Ba il avait des solutions des solutions yo xamné ne wan na fan la ko doon nga projet bi amul woon solution bo xamné fa la ñuy jëlee fa c'était ça la différence entre Amadou et, le, programme de Amadou et le projet de ces gars-là. motax le projet est, est, est tombé à l'eau parce que c'était pas un bon projet pour un État mais xénal la yalla qui la ko mais dama né la tay li tax man ñun analyser gis lo tay yow xam nga ni ma Amina euh, le taux de chômage qui était là gal yi dem et eux ils viennent gal yi di gëna yok dé di gëna bari ki nañ ci nga yor euh, port 700 personnes nga euh, limogé yob au chômage chômage yok na wala wàññeeku yok na wala wàññeeku ko xam nañu koy mën a chômage bi dafa yok wala dafa ko quand il y a plus de 700 et quelques wala 700 wala 400 wala 100 sax bu do dello ci taux de bu ko ci taux de chômage bu fi am dafa yok wala dafa wàññi soyons de bonne foi et on voilà nga dem eh, euh, nga dem euh, comment ça s'appelle à la lonaze et le gars encore fait quitter des gens et je le mets encore sur ce taux de chômage là bi nga xamni ñom mom lañ fi fekk

mais man légui dama ñëw au lieu yooyu yëpp ma cal yo nga ñëw au lieu nga calculer loolu yëpp ne bien vrai Ndeye Sow moo fi indi ki mais mën naa am ki man la voter mais dédé comme que Ndeye Sow la maintenant c'est sont ces jeunes là ces ces ces ces ces ces braves femmes ces ces pères de famille qui vont en pâtir parce que c'est la politique parce que ils ont une haine envers euh, ce régime qui était là et ñu nek ay sénégalais ma nek sénégalais légui man ba chômage bi dinañ ko défar parce que man danga may danga ma nek 700 personnes yo nga indiwaat say say nitu bop ba kañ jusqu'à quand ce rythme là le chômage est là et les sénégalais sont là ba paré gis nañ arrogance bi sen boy bu dof bobu yor euh, stagiaire bobu ñu jox direction ak arrogance bi di wax né bu séddoo dé am ñun ñoy séddoo ñun ñi nekkoon Pastef kon maanaam ñoom Pastef bokul Sénégal. man waruma liggéey ci gouvernement bi man waruma mën a am poste ci gouvernement bi parce que bokkuma Pastef wala man bokku euh, euh, kii laa